opération un peu particulier foofu l'ar c'est l'armée qui fait les opérations même de de maintien de de de l'ordre. elle est mais, elle est à saluer mais elle est à saluer. mais les milices. elle est beaucoup, à saluer les milices ont beaucoup opéré. elle est à saluer l'armée et il y a des morts non élucidés. l'armée elle est à saluer et on la salue. des fois on entend même des gens qui regrettent que l'armée n'ait pas été ne nous ait pas écoutés. nous on salue cette armée. On salue l'armée qui actuellement à Ziguinchor, malgré qu'elle euh, euh, éprouve beaucoup les populations sous les ordres d'un gouvernement politique qui demande qu'on fasse des embargos, qu'on fasse des barrières, qu'on jafeel accès bi ak euh, circulation des populations. Mais quand même, on a vu, quand Ousmane Sonko était à Ziguinchor, des jeunes qui étaient derrière des barricades. Et on a vu une armée qui était à la hauteur de l'une koy armée républicaine et Une armée républicaine et, et humaine et qui n'a pas obéi aux ordres et à tous ces fantassins qui disaient que lii c'est pas normal lu tax armée bi di seetaan lii on a vu des non, militaires <laughs> non, se donner la main avec les jeunes on veut de ce pays-là attention, on veut attention. la paix ñun on ne cherche pas de querelle. l'armée a ses chefs. est-ce que est Ziguinchor mais est-ce que a pas un militaire ou un officier de haut rang ou un chef de l'armée bu joxe l'ordre d'agir. non si l'ordre avait été donné il serait exécuté. je n'ai jamais dit qu'un militaire le ah, fait. je dis toujours que man ah. les ordres qui sont donnés c'est des ordres politiques. Jusqu'à présent, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'ordre militaire. je pense que tous les ordres j'en suis convaincu c'est des ordres politiques tu sais pourquoi en 2021 bi dëkk bi tàngee quand l'armée est sortie nous avons jubilé avec l'armée sunu fierté mais l'armée est là pour mais il y a des gens il y a des gens il y a des gens que ça a choqué il y a même euh, des militaires qui ont été radiés parce que ils ont jubilé avec la foule c'est normal Pourquoi? C'est normal. C'est des Sénégalais. Le, non, non, c'est des ils Sénégalais. Ils sont là pour le maintien de la ils paix. Ils sont tenus Quand par ils un devoir. Quand ils arrivent à maintenir non, la paix, non. ils doivent être félicités. Ils doivent être ils embrassés, sont, ils doivent être aimés un parce militaire, que ils, ils sont ils sont pas plus patriotes. On n'est pas plus patriotes que eux. Un militaire doit tirer parce qu'un gouvernement veut rester au pouvoir. Un militaire doit tirer. Un militaire dafa am droit de réserve. Un militaire n'a pas à tenir un discours politique. devant des foules surexcitées. Il n'y a eu aucun discours. Sur la VDN, sur la VDN, sur la VDN. Il y a eu des comportements. Sur la VDN au mois de juin, oui. l'armée est sortie, boy yi di leen tàccu ñu ñëw taxaw. il n'y a pas eu de violence. encore heureux. mais mais mais. tax ñu leen di relever la discipline. ah ñoom daal bu ñu bu ñu àndeek ñun. bu ñu ah. àndeek ñun. Euh, kontaan ñu tàccu leen ñu sanctionné leen mais par contre bu ñu tiiree ay nit dee. dara du ci am d'abord on veut de cette armée là on veut de cette police là quand l'armée est sortie les choses se sont calmées toujours quand l'armée est sortie bu ñu leen woo ñu jël seen responsabilité quand l'armée est sortie les choses se sont calmées il y a eu un retour euh, à la à la à la tranquillité parce que on est rassuré euh, pas ci manifestation yi armée tiréwul parce que non parce que c'est pour ça que je te dis ah. on les appelle à prendre de responsabilité ah. parce que quand ils sont dehors nous nous considérons que nous sommes en sécurité parce que comme li nga ko wax quand il les milices duñ leen seetaan. Ah. ban armée mooy seetaan ay milices di dóor ci ay population ah benn armée du ko nangu mais mais loolu moo tax ñun bu ñuy bu ñu bu ñu waree manifester mais bu ñu wowul armée bi nommé leen ñan la ñuy woowal mais mais jàppal ne ils sont là pour nous un militaire bu l'armée jàpp ne dafa wàcc droit de réserve am l'armée sanctionné ko c'est dans notre intérêt parce que l'armée est hors du jeu politique des militaires n'ont pas à pavoiser avec des des des des des, des, des civils boo xoolee ci VDN bi les gens qui sont intervenus quand les jeunes sont venus vers eux voilà ils sont restés statiques ils sont restés zen ils ont fait leur boulot les choses se sont bien passées. Moi j'aime quand je vois l'union et la jàmm ak saafonte diggante armée ak jeunesse bi j'aime ces ces ces images. Ce sont de belles belles images. parce que c'est des images qui montrent que notre armée est, est celle pour laquelle on est fier d'appartenir à ce peuple-là parce que quand même euh, dañu bëgg di ñun di fàtte sunu histoire cette armée euh, elle ne sort pas du néant elle nous a trouvé déjà nation Maïmouna gis nga état bi nit ñi di utiliser di dal suñu kaw moom lañ mujjee bokk ñun dañoo mës a am suñuy armée man de su may maam fëlee ñoom Cheikh Omar Foutou dañoo amoon seeni i waa Jolof am seeni i waa Kayor am ko keneen ak keneen am ko mais ñëpp dañoo wéer seen ngànnaay pour le bien commun ñu dénk ko benn say ñu ne armée nationale ñu am devise boo xam ne ñun ak ñoom ñoo ko bokk ñu jóor a jël door a jël nag état teg ko ci kawam pour mu organiser loolu kon lu mbir mi jaxasoo jaxasoo ñun dañuy bëgg toujours armée boobu ñu di ko sentir suñuy côté dañ leen di woo parce que comme li nga wax léegi heure bu xel yi jaaxle xale yi bu ñu gisee armée seen xel day daal bu ñu doon manifester sax dañuy dem làqatu ci armée bi parce que xam nañu ni ils sont sauvés parce que notre armée sort de nos pour dem di sauver d'autres vies. mais ça ne se fait pas en démocratie. de faire appel notre pays pour aller sauver d'autres vies. non notre armée elle est dañuy dem ci yeneen dëkk yoo xam dañ leen di plébisciter. bu yeneen dëkk yi bu ñu gisee armée sénégalaise seen xel day dal parce que xam nañ ni bokkuñu ci violence bokkuñu ci dara loo xamante ne lu ñaaw la dafa ku mën a rassurer nag ay dëkku jàmbur ba ñu lay yóbbu ci ay mission mission internationale bu nekk ci sa réew boo génnee sa waa réew. seen seen mais en à l'armée. à l'armée mais ça c'est autre chose voilà beneen <laughs> parce que quand tu vois quand ce que li fi jot am lépp ci Sénégal am ko 2011 ak Abdoulaye Wade. dëkk bi yëngatu woon am ko du temps de vingt 88 ak ñoom ab du Diouf li ñu fi gis ci Macky Sall sëqat mu génnee armée teg ci kaw ça ne se fait pas en démocratie mais mais y a des moments. wax nga ko ça ne se fait pas en démocratie donc ñun en quand on voit l'armée on ne peut pas voir de menace on va au contraire suñuy xel day dal ce qui nous lan moo ñu du rassurer mooy quand on voit pick-up yoo xam ni ñi ci nekk xamuñu dañoo civil xamuñu ay milice lañu mënuñu leen identifier mënuñu leen séparer te nag lan mooy wax ji mooy bu ñu jàkkaarloo police nekkuñu sunu ginnaaw ci sunu kanam lañ nekk. mais mais mais xam te dañuy tiire ay balles réelles muy dal ci xale yi ñuy daal loolu suñu xel mënul da dal. suñu gis ñun armée fu mu tiire ci sunu kaw. kon ñun dañu suñu xel day dal ba tey bu ñu gisee armée di ko woo suñu gis gendarmerie fu mu solee te ñu suñu kaw donc fu ñu mun munti toll ñun dañ leen di woo jël leen seen responsabilité mais ñun gis nañu ay pick-up yoo xamante ne ñii dañu sol ay tenu ñu bind ci ay police wala ay faux tenue ñu nekk ak ay milices yoo xam ne non identifié ñu takk ay gilet àdduna yépp gis leen ñu yore ay ngànnaay di làqatu di tiire ay nit di daanu loolu nag bu ñu ko gisee. ñun ñoo yey bëgg la la protection quand même de notre armée. au mois de juin. mais c'est pas on n'a jamais demandé à notre armée de lever de faire un coup d'État il faut pas que ñu dëkkal ñu fu ñu dëkkul. parce que je pense que je pense que je pense que ñun ñiy xeex pour avoir le pouvoir ñun ñi nga xam ne 2021 bi dëkk bi yëngatoo Ousmane Sonko malgré que jàpp bu ñu ko jàpp mook M2D. dañu def une déclaration ne nañu bàyyi Macky saal mu eggali ñu gunge ko parce que Sénégal du dëkk boo xam ni dañu bëgg armée téye ko parce que ñun armée xam nañ luñ koy doyee bu fekkonte ne dañu bëgg woo armée euh, mu def coup d'état duñ ko woo ci ay conférence de presse duñ ko woo sur le plan public quand xam nañu ne nit ñi di def xam nga xam nga donc des aussi il faut savoir faire la part des choses